léegi nag la fekk nga xam ne euh, Ousmane Sonko état bi daf koo ragal mooy ba mu bëgg a wax kenn ku ne ngay cëb tëb di dal di tëb di dal te xamaguñ lan la war a wax waaye kenn ku ci nekk saw fit nee na tëll mhm. ndax jàpp nga ne bu waxee ba pare mhm. sa nguur mën naa jeex moo tax seen xel dëlu léegi nag Sénégal nag ñaar yi ñoo ko yàq mhm. kilifa aada yi ñoo ko yàq ak kilifa diine yi ak politiciens yi ñan tudde woon ay kilifa diine bu jëkkoon ñooñu day ay kilifa diine lañ bu dee léegi nag euh, maanaam kilifa tariixa la ñuy wax loolu waxoon naa ko fi yaakaar Macky Sall nit ñee yaakaar ne daa pare pour dem mais pareegul pour dem parce que boo xoolee wax yi mu wax ni mu tànge ak wax yi mu wax di menacer nit ñi ak di leen jéem a xupp ak bew gi mu bew ci kaw nit ñi ah yàlla de am na lu mu waxoon na de nee na kon Firawna de da nga maa yab te itam da ngaa yara di ko te da ngaa réew ba saaba si fay ba noppi juge yi ci boppam ba Macky Sall lànkee ñoom ñoo waroon a génn def communiqué ne atte bi nag dañ koy dañ koy dogal par force day dox waaye nag gis nga heureusement dañoo lànk ne duñ ca wax moo tax lii am boo léegee kenn Macky daal kon moom moo nekk ci kaw bopp yi ñëpp daal lu ko neex sañ na koo def te kenn sañu koo corriger léegi ña jàngi woon droit lan moo tee ñoom ñu mën a def ensemble benn yoon mhm. denoo si lii mais ñaaw ñaawtee bii di wéy gis nga ensemble euh, kii Sénat bee nga xam ne dàq na douze personnes ya fa ne mhm. gis nga boo ëllëgee suuf si bi mën naa xëy xëy ne day daq dàqandoo ñëpp donte sax loi mayewut loolu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 tey nag ñu fas yéene seq ak moom li nga xam ne moom moo di waxtaan waaye itam rawatina li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi balaa loolee dañu koy daal di bàyyi mu nuyoo ko mbokk internet. auzu billahi mina shaytaani rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Hmm. Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokki Sénégal ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk bitim réew yëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom tey ñaan yàlla defal ñu ci sunu réew jàmm. Hmm. waaw oustaz bu ko defee dañuy daal di dugg ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji Sénégal mi ngi koy daal di dund bu ñu ko waxee nag dañuy daal di dem ci li nga xam ne moom moo di justice bu ko defee dañuy dem fa nga xam ne moom moo di ca CEDEAO ginnaaw euh, li nga xam ne avocat yi Sonko yóbbu woon nañ ko fa ngir jàpp ne Ousmane Sonko dañu ko daal di tooñ loolee cour de justice bu CEDEAO daal di na koy neenal naka nga gisee loolu. waaw kay jërëjëf sëñ Cheikh xam nga. Mhm. bu fekkente ne réewum Sénégal. Mhm. ay jafe-jafe moom mooy bi Macky Sall jëlee réew mi ci Abdoulaye Wade rek booba la jafe-jafe Sénégal tàmbali mm-hmm. naam nag ñu ngi woon ci jafe-jafe waaye booba mérut woon nii mm-hmm. ndax fi mu ne nii réew mi daanaka ñëpp am ay problème côté boo gis rek mm-hmm. daanaka secteur booba Macky Sall indi na fa ay jafe-jafe beneen bi ci des itam mooy wàllu justice wàllu justice moom ni mu ko jaxasee sax dafa ëpp ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu yoon bu dee CEDEAO mhm. ñooñu Emmanuel Macron moo nekk seen ginnaaw wala nga France moo nekk seen ginnaaw mhm. képp ku fi toog rek mhm. la France bëgg rek loola nga koy defal te xam nañ ne Ousmane Sonko enti système la arrangé wul français yi arrangé wul ñi nga xam ne ci tappale la ñuy dox loolu moo tax gis nga même CEDEAO bu ne woon Ousmane Sonko moo am dëgg itam maki Sall day lànk ndax la ko fi jiitu man loolu waxoon naa ko fii la ko fi jiitu mooy Abdou Karim Wade dañoo gisoon CEDEAO jox ko dëgg Macky bañ ñu gis xalifa Ababacar Sall ñu jox ko dëgg Macky Sall lànk kon bu ñu joxoon Ousmane Sonko dëgg itam Macky Sall day lànk Macky Sall moom nekkul kuy dox ci ay loi wax naa ko ba tàyyi nee naa leen Sénégal du réewum droit boo xam ne nit ki day am ay jafe rek daal ne damay dem ci yoon pour ñu saafaral ko jafe-jafe parce que boo xoolee situ su Sénégal ak situ CEDEAO benn la parce que CEDEAO kuréel yi nga xam ne maanaam réew yi nga xam ne France moo doon coloniser ñoo ca bokk kun ci xool arrangé woo leen ñu fexe ba jéem laa tegi daan boo doon arrangé loo mën a def seen yoon niwu ci beneen bi ci des itam mooy boo ñëwee ci justice Sénégal ñoo yem parce que justice Sénégal ngay gis ko bokk ci Macky Sall daan ne la danaa la duma te du mujj fenn te nam ko waxee noonu la koy defee te du mujj fenn par exemple bi ma lay jox mooy Cheikh Omar Diagne daa nekk di def émission Jibril Waar manasé ko mm-hmm. wax ko lu ñaaw mm-hmm. mu delloo ko ko mu ne ko danaa la futte ba nga mel ne jigéen mm-hmm. loola li mu yaakaar mooy xam na ne justice amul Sénégal te ñoom ñi ànd ak Macky Sall justice dana leen defal liñ bëgg moo tax mu menacé Cheikh Omar Diagne ba tey mi ngi ci kaso bi ba mu ko defee ñu bàyyi ko danta tëj ga jaaduwut bañ ko bàyyee itam mu toog ne képp ku ko nar a mu rey la te loolu lislaam digle loola mooy yoon ndax loolu tubaab sax légitime de défense la koy wax ñu jàppaat ko daal na ko warat ci kaso bi ba léegi yàgg na fa dama ci kasu bi ba legi te ken mënul wax ne nangam lañ koy topé mhm. ki nga xamne dañ ko japp nak te xamuñu luñ koy topé mhm. manam dañ ko fay di ba mu yag lool ñu jek jek rek xey bayiko mhm. gis nga motax fimne ni amul lenn luñ mëna tek ci loxo nit ñi moy dañuy xey xey rek bayyi ci Omar Diagne waye ken du ko àtte ci lima ma man parce que da defu dara boo xoolee ñeneen ak ñeneen ku melni ne Cheikh Ibrahima Gueye nay leer ñu bare bare bare ñi ci kaso bi lu mel non rek luñ leen tëjee manam tejgi teguñ ko ci yoon motax fimne ken du leen jébal juge waaw su ko defee nag ña nga xam ne ñooy jàpp di tëj mhm. ak ña leen di tëjloo mhm. boo ëllëgee yowmal xiyaam nag mbir ma foofa lay mettee ci ñoom waaye bu boobaa day fekk bay wéy mbuus ndax ki lay def loolu bon nga ànd caag moom di ko def wala mu doon sab xarit di def def loolu bon nga di ko def mhm. ah boo ëllëgee lépp nag dana këpp ci sa kaw bopp te doo am foo ko jooyee ji nag loolu moom du leer a leer a leer la mais est-ce que itam jaadu na CEDEAO maanaam gàntal gim gàntal ki nga xam ne moom Ousmane Sonko ne lépp koy teg jaadu na ci koo xam ne maanaam tëj nañ ko lu toll cinquante cinq jours bu ko ëppul sax ci këram gis itam ay nervi yi nga xam ne euh, télé France 24 ñoom ñoo ko daal di fesal ba pare ñu tourné waat jëlaat toor boobu yëpp tegaat ko ci kaw ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko. waaw loolu mooy li wax léegi rek mm-hmm. mooy xam nga nu justice daa amul ci Afrique. Mm-hmm. parce que CEDEAO nee naa la France nekk ci seen ginnaaw France Ousmane Sonko arrangé wu leen mhm. xam nañ ne li ñuy def nii jaaduwut de mhm. parce que bu ñu bëggoon mu dakk Macky Sall lañ na eh mhm. bàyyil jàmbur bi parce que Macky Sall France lay diglu waaye digluwul Sénégalais yi parce que bu diglu Sénégalais yi Sénégalais accès fii ak moom waaye troisième mandat bi ko Ousmane Sonko xañ mhm. au lieu que mu régler mbir mi ci mbirum yoon wala mhm. mbirum politique mhm. mais dafay jël doole ji nga xam ne moom la ñëpp bokk jox ko ko te Ousmane Sonko bokk ci doole jooju participer ca mu jël ko di ko dóorewaat benn nit ak koo xam ne daa bokk ci benn parti képp ku bokk parti Pastef mhm. daanaka ñoom dong ngay fekk ci kaso bi waaye ñeneen nga xam ne ay bandi lañ mhm. defoon ay faux passeport ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalo mhm. ñi ay faux billet ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalo yu baree baree baree bari da nga koy mën a gis ka nga xam ne six cent millions fekk nañ ko ci biir këram te yoon di ko tere mi ngi ci mbedd mi di taxawaalo ki nga xam nee na Ousmane Sonko dañ ko war a éliminer dañ ko war a rey ngi ci mbedd mi di taxawaalo ki na xam naa ñi rey Fulbert Sambou ak Didier Badji dañ leen war a leen a rey te xam naa ci dara mi ngi ci mbedd mi di taxawaalo kon Sénégal moom ku naan am na fi wax dëgg yàlla da ngaa naa féex rek waaye Suisse amul léegi nag Sénégal nag ñaar yi ñoo ko yàq. Mhm. kilifa aada yi. Mhm. ñoo ko yàq ak kilifa diine yi ak politiciens yi. Mhm. ñan tudde woon ay kilifa diine bu jëkkoon. ñooñu day ay kilifa diine lañ. bu dee léegi nag euh, maanaam kilifa tariixa la ñuy wax loolu waxoon naa ko fi yaakaar naa. kilifa tariixa moom moo am mais kilifa diine amatu fi. bu fekkente ne kilifa aada yi la itam. gis nga li xam ñu ngi koy teg. te du yoon au lieu que ñu génn dénoncé ko wax ca mhm. waaye gis nga ko ba tey itam dañoo bàyyi noona mhm. Ousmane Sonko nag liñ ko teg lépp wax dëgg yàlla kenn ku ne xam nga ne mhm. jaaduwut te itam du yoon Ousmane Sonko nee naa ba tey amlantewut ak yoon Macky Sall la amal affaire te Macky Sall 2021 loolu ko Sénégalais yi defoon loolaa ko naqari mu bëgg koo fayeeku ci Ousmane Sonko fii laa toogoon ne la maanaam Macky daa daa mere Sénégalais yi te jotewut ak ñoom dara waaye lim joteeg ñoom daal mooy la amoon deux mille vingt et un iñaane na koo bàyyi mu jàll loolu daal la iñaan moom daal la bëgg a fayu ba tey te xamul côté bu muy jaar moo tax lépp lu man ci ci ñawteef mm. dana ko jéem a teg te jël mm. teg ko ci ko Ousmane Sonko waaye nag waxoon naa ba tàyyi ne mm-hmm. bépp dictature buñu mas a dégg ci àdduna mm-hmm. mu mujj fu neex amul mm-hmm. parce que boo xoolee Firawna amul mujj rafet te itam nguuram nga ñàkk na ko te kam ko doon añaane moo ko yóbbe loolu lépp te moo ko mujj doon gis nga Macky Sall coxor gii mu jëmee ci Ousmane Sonko ak banditisme gi mu jëme ci mom ci jëf yu ñaaw mhm. lu ñaaw lu mu jël ko tek ci kawam mhm. am jiss yo xane paranan jaay seen alakhir jënd aduna mhm. ñom itam parata diko jappalé ci ñaaw tepp yoyé nañu xamné ne seen mujj day ko xam dara da nga xamné seen mujj du rafet anaka génnewoon Ousmane Sonko ci liste pourtant même pas wér day duguna ci bir souf bu ko wóoroon ne day liko ko fi dese matul wér wallahi naa seen ko tamit ñi ngi wax naan euh, est ce que mo moko ko xibaar boobu tamit mi ngi kii mi mi mi ngi law ah loolu la ñu wax de ah te xam naa ne itam mm-hmm. man day dégg naa ba taay ñu naan génne nañ ko génne nañ ko waaye dégguma ñu ne benn juge moo ko génne mm-hmm. ginnaaw bi mu génne adduna nag mm-hmm. xam naa ne day bu fekkente ne génne wu ko ca ay mbokkam war nañoo génn euh, dénoncé loolee waaye nag yeneen juge yi daal loolu am njàngat ci ñoom képp koo ci xam ne dañ laa def loolu di fuut wut alal juñ la mën a fay ndax léegi liñ lay jox ci alal day bari parce que da leen di jaral ñu yëkkati milliard jox la ko milliard doo ko lekk Mhm. doo ko lekk mhm. bala nga ko lekk dee mhm. kon nag kenn ku ci nekk na jël dee teg ko ci kanamam te xam ne réew mi problème yi fi am juge yu dëng yi ñoo ci jàppale Macky Sall mu dëng mii looloo tax lii di am am waaye bu fekkonte ne Macky dafa dëng am juge yu jub yu fi nekk di àtte dëgg rek su boobaa tamit liñ li mu bëgg a teg Ousmane Sonko ci ak fayonte ak iñaane ko bu boobaa itam loolu du mën a sotti kon ku dëng ku dëng nekk ca rek di ko jàppale waaw dañuy daal di dellusi ci justice bu Sénégal gis nañu cour suprême bërki démb dogal bi nga xam ne daal dina koy jël neenal ki nga xam ne moom moo di Siré Ariba sax noonu la mën a wax Siré Ariba neenal li nga xam ne moom moo di bi nga xam ne le juge Sabassy Faye àtte woon na ko ca Ziguinchor neenal gi mu ko neenal naka nga gisee ak war a delloowaat li nga xam ne moom moo di dossier bi fa nga xam ne moom moo di tribunal bu. Siré Ariba wala Ari Ba. si ah, Ali Siré Ba. waaw Ba. Ali Ba ci boppam. Mm-hmm. mom lamu mu def mhm. xamna na jaadu mhm. parce que mhm. bo xolé ni mu doxale affaire xam nga juromi saas ño fa nekkoon juromi juge ño warona atte affaire pourtant amna ko gedd bàyyi kon xam nga até bobu jaarul yoon waye nak Macky Sall mom da xorul loi xorul yoon manam li yoon di appliqué Macky Sall yoonam neeku ci waye wa yoon tamit ñom ñi jangewon droit lu té ñu man ko fajal seen bop parce que gis nga fi bour bu deng Mhm. taxaw wax ko dëgg mhm. loolu ak jaamu yàlla gu rëy rëy rëy la moo doore ci jaamu yàlla yi mhm. parce que am na ñoo xam ne tey bu ñu yëkkate woon seen kàddu Macky Sall dellu ginnaaw waaye lii muy def moo ñoom ñoo ko kompaloo ndax ñooñu ñoo ca d'accord ñoo ko bàyyi muy def lu ko neex ci réew mi te kenn waxu ko dara te bu ñëwee sax dañ koy tàgg nag encore nga xam ne kon kilifa yu dëng yi ci boppam ñoo yàq réew mi waaye Ali Sira Ba loolu mu def sàmba si saaba si fay la mu àtte da koo indil ay argument néewul rek bokkut ak ñi nga xam ne dañu àtte ba pare ñu ne juge bii kat Pastef la far te dara du leen te fekk waaye keneen ku dul ñoom bu ko waxee ñu jàpp ne dugal ci kaso bi mm-hmm. loolu lañ jàppee Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. ndax daa wax xalaatam ci juge yi ñu jàpp ko tëj ci kaso bi mm-hmm. Madiambal Diagne wala Cheikh Yérim Seck Madiambal Diagne la sax daan ne juge bii àtte Ousmane Sonko ci deux mois yi de Pastef la far la far pourtant kenn wax ko dara ñu ngi ko bàyyi muy doxi soxlaam léegi nag saa ba si fay la mu àtte da ko indil ay argument waaye Ali Siraba li mu àtte wala bok li mu ne kase ko teggu ko ci ben arjuma mhm. xam nga ne dugg sa néeg mhm. nan sa kafe genn jaxan wok sa bir dal na atana nangam xam nga loolu jadu ta ñom até bi gëna mag manam mhm. juge juge yi nga xane dañ ne tay cour suprême nga xane moy bëre bu attakaay yi gëna mag légui ñom ñu bëgg koo jël war ko fi leen gëna a ndax loolu xel nangu nako kon mo lay xamal ni ñun nekkatuñ ci réew mo xamné dañuy dox ci walum yoon déedéet lu neex Macky Sall rek ca lañuy dox waaye ñu koy def itam mm-hmm. li ma waxoon léegi xam nga sax léeg-léeg da ngay toog ba yàgg nga naan ah diw ak diw daanaka di wax di tudd yàlla sax loola day mel ne da ngaa yóbbu yàlla mm-hmm. ndax ñoom faalewuñu yàlla mm-hmm. parce que ku ci faale yàlla da nga xam ne a ba at yi mu am de da nga xam ne at yu mag la est-ce que magul ndax jëmmam ji boo ko xoolee da nga naan ku mage la waaw léegi ku mage naka lay dawee di topp ci gannaawub jaam te yow place bi nga occupé avant mu fiy nekk yàlla la joxoon am njàng yàlla teg la ci privilège yooyu teg la ci palace yooyu moom bu ñëwee aj la fa itam daan ne la moo fa teg te man na laa folli jëlal yàlla nga teg ci sa kanam bu la folle itam su keneen ñëwee dana xam ne diw kat da doon caaxaan mu jël la bu dee yàlla yàlloo nga place boobu ñu delloo fa waaye daal di topp bànneexum nit ngir mooy aji bind ji kooku moom jàmm bu ne war na koo mën a moytandiku te itam topp loo xam ne bànneexu nit la ba yàlla mere la ca day àdduna jëru ko de te adduna moom day jeex te daanaka jeex na ba pare kenn ku ci nekk nag bul xool ah, kañ la addunay tukki waaye xoolal kañ gay dee waaye wax dëgg yàlla ku dund juróom-ñaar fukki at war ngaa xam ne kat loo fi yàggaat yàggaat juróom-ñaar fukki at doog fi amaat loolu moom war na leen a leer te at yi dafa gaaw lool kon daal nit ku ci nekk juge bu ne la mi àtt na jël yàlla teg ci kanamam jël peuple bi teg ci kanamam ndax peuple bi day wax dëgg yàlla kuy àtte ci seen nga war a àtte te peuple bi de dëkkuruñ ci juge yi daa am juge ba àtte dara ba pare mhm. Macky Sall jaar ca gannaaw am leneen lu mu wax mhm. ba beneen juge ñëw def lu contradictoire ak loola mhm. kon juge yi war nañoo xalaat seen bopp benn am na ku ciy fo ñu ne ko yow nii kat da ngay fo parce que lii nga àtte tegul ci texte loolu moom moo waroon a doon seen seen kii waaye déggoo juge yi waxti ba saaba si fay àtte ba noppi juge yi ci boppam ba Macky Sall lankee ñoom ñoo waroon a génn def communiqué ne ate bi nag dañ koy dañ koy dogal for force day dox Mhm. waaye nag gis nga heureusement dañoo lank ne duñ ca wax moo tax it lii am boo léegi keneen danaa te leen lu loo xam ne favorable ci côté Macky Sall day lank su boobaa duñ ci mën dara parce que ñoo ñoo seetaan lu bon muy wéy mhm. kon nag mu ngi noonu rek. mais est-ce que itam euh, nekkul arrangement comme li li Ali Siré ba def nekkul benn côté nekkul arrangement ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef parce que. moom bu jëloon dogal ne Ousmane Sonko li ñu koy toppee lépp dëgg la Ousmane Sonko dootul mën a participer ay élections fii ci réewum Sénégal est-ce que itam côté boobu tamit. Euh, xam nga xam nga loolu moom mooy wax ju yàqu Macky Sall daa jeexal ba pare ku mm-hmm. jeexal. maanaam gis nga menace yi justice dafay des tamit. maa ngi ñëw. Mm-hmm. maanaam Macky Sall mooy manipuler justice. Mm-hmm. Macky Sall bu daanoo rek. justice beneen teguwaat ci yoon bu keneen ñëwee. te xam nga man damaa jàpp ne keneen day ñëw te du bokk ci ñoom. man loolu laa gëm. kon su su fekkonte na ñoom dañoo àtte ne Ousmane Sonko ko dañ koo daan définitive dootu mën a doon ci président da nga naan seen bëgg-bëgg lañ wax waaye kay doonaat président moom yàllaa ko xam su boobaa nag xam nga loolu ab luwaa la buñ buñ àtte muy luwaa bu dëng bu bon ñu teg ko ngir lan di galgal ay nit ngir xam ne kat kooka daa jub te ñoom dañoo dëng xam nañ ne Ousmane Sonko jubam gi rek moo tax ñu bañ mu wuutu leen waaye buñ amoon buñ xamoon Ousmane Sonko ne ñoom la mel mm-hmm. su boobaa duñ bañ mu wuutu leen de mm-hmm. te moo leen a jub bu ko defee nag loolaa tax bëgguñu mu wutu leen waaye gis nga nit daal même Henri Siré Ba bu ne woon Ousmane Sonko daan liñ ko àtt lépp dëgg la mënatu a doon candidat su boobaa moom bëgg-bëggam la wax te itam bu boobaa ñam koy wax it gëmuñu ko ndax sénégalais yi gis nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne nit du dañ di fen di fen di fen ba bu waxee dëgg sax waxam dëgg googee ay fen lañ koy jàppal wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar. Mhm. gis nga wa xoolee wa APR li len dal moy mhm. moy moy li nga xamne mom la yonante bi alayhi salatu wasallam wax ñom dañu tam wax lu deug tam wax lu deug tam wax lu deug ba buñ waxe deug sax nit ñi wedd ko moo biñu bi na Ousmane Sonko dafa am ay day manam dafa am feebaru xelak yoy yep automatiquement rek nit ñi nenañ leen li ngeen wax lu deug motax mhm. ñu naan dañuy wër ñi ay nit di leen jéem a di leen yu kenn xamul parce que ñom ño tam wax lu deug Antoine gis nga ko ñàkk a wax lu du dëgg da koo tàmm ba mujj nañ ko jëlee foofa ndax xam nañ ne li yàqu lépp ci moom la bàyyi ko. Hmm. ana ana ana kii keneen ki ki ne eh, Ismaïla Madior Fall. moom it daa tàmm wax lu du dëgg ba bu waxee dëgg sax. Hmm. ci ci ci justice kenn du ko gëm. Hmm. moo tax jële nañ ko fa ndax ñaar ñooñu ñooy ñi dàq wax lu du dëgg ci nguuru Macky Sall gannaaw ba seen jir wéyee. ginnaaw loolu lépp nag. Uh-huh. ñoom bu ñu àtte woon ne Ousmane Sonko daan nañ ko Sénégalais danañ xam ne li ñu ko daan du dëgg parce que Ousmane Sonko amul benn daan boo xam ne tegu na ci kawam bu définitif parce que amul lenn loo xam ne ci la ko yoon war a topp nee naa la Macky Sall mooy toppante Ousmane Sonko mais yoonu réew mi toppante wu ak Ousmane Sonko léegi nag daa am saay-saay yu taxaw nag di ko ca jàppale looloo tax Ousmane Sonko di dund coono yi muy dund waaye bu fekkonte ne mbir mi dañ koo teg ci ay règlement rek teg ko ci euh, ay ay ay loi mm-hmm. su boobaa Ousmane Sonko fee mu ne du fa ne mm-hmm. kon nag Ari Ari Siraba bu fekkente ne moom daa ñemewu dossier bi dafa waroon na wéyal la ah, la koy wéyal parce que kee exemple la joxe saaba si fay exemple la joxe ci moroomi gisam yépp ndax bu fekkente ne Macky Sall dañ na kat fépp fu mu jaar ci justice dañ koy defal la bëgg mu ñëw am justice bu ko kale si justice bi daa waroon a siggiwaat su ko defee ñu dem ca Sénat Sénat tamit daal di dëggal la saaba si fay wax kon yaakaar na Ari Siraba ba mu ñëwee itam daa waroon a dëggal loola mu wéy waaye wërta wane ak ragal bay jël mbir mi bu ko dellowaat ci ëttu attakaay bi ko gën a suufe Ousmane Sonko nag dëkkul Dakar Ali Siré Ba dafa violé ay droit parce que Ousmane Sonko Casamance la dëkk sigi coor ga mu dëkk nag foofa lañ ko war a atte atte nañ ko ba jox ko dëgg ban ñëwee ci Sénat Sénat wéyal loola donte DGE moom ay bukki bukki woddoo dérubé ñoo fa ne ndax lañ leen def loo rek la ñuy def su fekkente ne ñooñu bañ nañ ban dem ci Sénat ñu xam ne Sénat ma ngay bëgg a jël mm-hmm. décret pour jox Ousmane Sonko fiisam Macky Sall xëy dàqandoo douze personnes ya fa nekkoon lépp loolu lu waa nanguwu ko mhm. waaye déggoo ñi jàngi woon droit kenn waxu ci. dégg nañ sax koo xam ne mandat bi jeexul woon. waaw mais ñoom seen mandat ci woon. maanaam dàqandoo douze personnes sax moo jaaduwut. Mhm. xam nga buñ moom buñ ko layalee daan na duudu ndiir kan mandaam daa jeexoon. Mhm. léegi su mandaam jeexee lu teewoon ñu jëlee ko fa pourtant duudu ndiir de la Macky Sall bëggoon ma nga ca woon daana ko defal li mu bëgg yëpp ndax élection législative yi passé maanaam projet verbal yi nga xam ne moom lañ jëlee ca côté Matam ba ko Déthié Fall bëggee xool maanaam duuru nduur moo nekkoon seex Ba daal lànk ne ko doo ko fi xoole dafa lànk ne ko doo ko fi xoole wala Ali Sira Ba mii moo bañoon ne ko doo ko fi xoole waaye duuru ndiir la Macky Sall bëggoon ci moom Sénat la nekkoon ban ñëwee ñoom ñoo ñoo invalidé eh, liste eh, Ousmane Sonko ñoom kon la Macky Sall bëggoon maa ko koy defal léegi nag dem na ba ca cëppaandaw ga Macky Sall ne man bokkatuma moo xam ne Macky Sall yorutu dara Mhm. te retraite na bu yàgg nag mhm. waaye ñàkk gi Macky Sall ñàkk yor dara moo tax la mu ko bëggoon a def loo waat mu lànk mhm. Macky daal di mer au lieu que mu yem ci moom dàq ko waaye daa far dàq douze personnes yëpp mu xam ne kat li mu bëgg duñ ko ko defal waaw léegi Macky Sall daal kon moom moo nekk ci kaw bopp yi ñëpp daal lu ko neex sañ na koo def te kenn sañu koo corriger léegi ña jàngi woon droit lan moo tee ñoom ñu mën a def ensemble benn yoon dénoncer lii mais ñaawtee bii di wéy gis nga ensemble euh, ki sénat be nga xam ne na 12 personnes ya fa ne mhm. gis nga bo ëllëgee suuf bi man na xexé xëy ne day dàqandoo ñëpp donte sax loi mayewut lool mhm. ndax nee nañ juge yi mhm. déplacé nga leen mëna def bo leen dee teg euh, ay ay daan mais mënu leena a Macky Sall man na xëy dàq leen te du muju fenn parce que nonu mu dàq capitaine Touré te muju fenn te yoon jox capitaine Touré dëgg mu dàq ko muju fenn man na xëy xëy Suisse bu deful lu ko neex mu xëy dak la mm-hmm. te du muju fenn parce que ño setan lu ñaaw muy wey mm-hmm. nañ boole seen bop mm-hmm. bu Macky Sall defé lu du noonu ñu nako deet arrêtel mbir mi kat ak si wut fii parce que li du sa droit li moy sa droit yam ci li droit jàmbur la jox ko ko waye nak ginnaaw ñu koy setan muy def lu ko neex rek ah nañ setan rek waye nak eh, japp naane Macky Sall moom ak mom moy ay yat moko fi jele ndax Macky Sall xamul bour saay na waaye buur la xam ah ko xamne yow lu la neex def kilifa yaag ñëpp not nga leen lu la neex def ah Macky Sall du koo xam ne fi mu ne nii gis nga élection yi ñu dëgmal bu soobee yàlla bu nu fi yàlla bàyyi jàmm. Mm. bu fekkente ne Pastef dañoo am keneen ku ko gañe itam bu ko neexee fii lay taxaw lànk na ah, gëñëwoo. waaw des foofu voilà naka nga gisee plan B bi nga xam ne Ousmane ba instant bi daal dina koy teg ginnaaw démb bi ñuy xaar discours bi nga xam ne lancé woon nañ ko ne dana ko daal di def ginnaaw bi direction pénitentiaire xuma xaw am problème ci loolu. Euh, bañ Ousmane Sonko mu daal di wax ci noonu nag gis nañu ki nga xam ne moom moo di Sadikh Top génn fésal plan B bu Pastef mu di Bassirou Diomaye Faye naka nga gisee loolu wa ilaa itam ba xam ba xam ñoom teeluñu fésal li nga xam ne moom moo di seen plan B. waaw Ousmane Sonko amul dara lu ko war a mën a tere wax parce que liñ ko jàppee yoon moo tax. Mhm. su fekkoon dañ koo jàpp ci yoon. su boobaa ñu daal nee na ab amul droit amul droit communiqué maanaam bu dee du détenu. Mhm. ci yoon waaye bu dee détenu politique moom. Mhm. am na sañ-sañu wax. gis nga yoonu réew mi ni ñu ko tëggee. Mhm. dafa baaxu maanaam gis nga àtte yii ñuy àtte. Mhm. ak lii ñu tëralee justice bi. Mhm. maanaam dañ ko waroon a raxas ba mu set wecc keneen ku ñëw ku fi toog da ko war a raxas ba mu set. xool classe Henri Ciré Ba bi nga xam ne ay salle bu lañ yàgg a ñu dàq leen. ñu jóge fi carrément. bu ko defee ñeneen ña nga xam ne kat ay nit la ñu nekk ci biir suisse yi. daañu xam ne kat suyee salle bu moom lii dong lay mujjee. kon daal euh, Ousmane Sonko am na sañ-sañu wax. ndax jàpp gi ko jàpp moo jaaduwut moo dul yoon mhm. kon am na sañ-sañ wax mhm. léegi nag la fekk nga xam ne euh, Ousmane Sonko état bi daf koo ragal mhm. mooy ba muy bëgg a wax kenn ku ne ngay cëb tëb di dal di tëb di dal te xamaguñ lan la war a wax <laughs> waaye kenn ku ci nekk sëw fit nee na tëll ndax jàpp nga ne bu waxee ba pare sa nguur mën naa jeex moo tax seen xel dalu léegi nag mu des nag euh, bu fekkante ne dañ ne Bassirou Diomaye Faye lañ jiital waaw dégg naa journaliste yi naan mooy plan B déedéet kenn waxul leen na Bassirou Diomaye Faye mooy plan dañ ne rek mooy stratégie. voilà mën naa doon stratégie dañ ne rek nañ parrainel mm-hmm. Bassirou Diomaye waaye kenn néewagul ne. Mm-hmm. mooy mooy kii gis nga boo déggee sax yenn journaliste yi nga xam ne ñu yàgg bañ passif lañ naan ex passif ex passif la ñuy wax mm-hmm. te ñoom xam nañ ne passif mooy doxal seen journal yi. kon yaakaar naa ne ñoom a coxar wuru leen woon a jàpp xanaa xamoo ne boo xoolee gis nga Macky Sall doole ji mu am. journaliste yi ñoo ko ko may. Mm-hmm. parce que ñaawteef yi muy def. Mm-hmm. xam nga dégg naa sànq nga wax ne. Mm-hmm. France ñoo wane ne niir bi ñoo ko wane. léegi ñaawteef yi Macky Sall di def journaliste yi dañ cee lànk ne duñ ko wax daanaka boo dee xool ñenn ñi ñu néew ñuy gën di ko wax. muy site internet yeeg yooyu nga xam ne bu fi site internet yi amul woon sax mu ci baam. kon. yaakaar naa ne daal. Bassirou Diomaye Faye bu waa ne nee nañ ko pare neel. su boobaa nañ ko pare neel parce que Ousmane Sonko moom. yaakaar naa ne képp kuy falu ci réew mi ci kattanu suñ borom mm. yaakaar naa ne dana ci def rôle bu am solo. Mm. Mm. mais plan plan B bi tamit est-ce que est-ce que kii na maanaam teeluñu ko fësal ñoom teeluñu fësal ne ki xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye ko faagaagal comme ni ñu jàpp ma jumul li ñu toppee Bassirou Diomaye moom la moo tax man ma jàpp ne Sénégal ci boppam. Mm-hmm. Macky Sall mi ngi togg fitna joo xam ne bis bu yeewoo. Mm-hmm. du baax ci réew mi de. ndax fi mu ne nii gis nga buñ buñ placé Bassirou Diomaye xam nga Ousmane Sonko dañ na dañ koo bëgg a éliminer mhm. donte éliminer gi sax sotteegut mhm. waaye ñoom loolu lañ bëgg mhm. ba xañ koy eh, fiis parrainage xam nga gis nga Ousmane Sonko ñoom liñ ko àtte yëpp lu illégal la léegi saaba si fay jox ko dëgg ñu bañ léegi ñoom itam bu ñëwee jox nguur gi dëgg waa parce que bañ nag su boobaa réew mi mënta di ak jaxasoo parce que gis nga Macky Sall lii muy def nii baaxul moom jox nañ ko liñ ko war a jox ci mandat jeexal na ko tas na yaakaaru sénégalais yi na dem bàyyi ñu suñu réew mm-hmm. comme jeexal na lu mu fiy di di am lu muy galgal ay nit mm-hmm. nga xam ne Macky Sall nit ñee yaakaar ne daa pare pour dem mais pareegul pour dem mm-hmm. parce que boo xoolee wax yi muy wax ni mu tànge ak wax yi mu wax di menacer nit ñi ak di leen jéem a xupp ak bew gi mu bew ci kaw nit ñi ah yala day am na lu waxoon firaw na de nee na koon firaw na de danga maa yab te itam dangaa yara di ko te dangaa réew dinaa ko faj Mhm. daal ne Moussa. Mhm. dem leen ca Firawna wax ak moom wax ju teey. Mhm. su ko defee de ah mën naa moo fàttaliku bu ko defu nag dana rëq ndigam. Macky Sall nag nit ñëpp wax nañ ci moom njëkk ak teraanga Ousmane Sonko wax naa moom ci njëkk ak teraanga. ba ne ko du ma la topp dara. waaye taxul Macky Sall dégg ko moom daal la amoon deux mille vingt et un daal mënagu ko wanaasu. moo tax lépp lu man ci lu ñaaw dana ko teg Ousmane Sonko léegi nag bu fekkee ne ñoom dañoo bëgg ne dañuy éliminer Ousmane Sonko mhm. ñu teg Basirou Diomaye ñu ne dañuy éliminer Diomaye mhm. ñu teg keneen ñu ne dañ koy éliminer mhm. su boobaa maanaam gis nga ña bokk ca ñoom damay ragal sax armée bi seen xol yi mujj sot bañ mujj jël mbir mi a ah, mais donte nag ñoom loolu doona doy waar ñaan bañam rek ah, jàpp naa ne nag mën nañ faa àgg nag parce que mbir mi daa ñaaw ba ëpp de xam nga mbir moom mën nga koo ñaawal te di ko nëbb mais Macky Sall jëfe yu ñaaw yi muy def da cee nëbbatu dara na nëbbatu ci dara. Mhm. boole ko kilifa yi tayle Ousmane Sonko ña nga ci seen i ruq. Mhm. nee nañ dañuy jaamu ma ne leen gis nga seen jaamu yàlla gii. Mhm. jàkkaarloo nguur gi tooñ nga ne ko yaa tooñ moo ëpp doole yow. mel na ne sax Ousmane Sonko wax na ci lu mel noonu parce gis nañ benn live Pape Alé Niang bu mu kenn xam ngeen ki ngeen war a waxal dem ngeen ngeen wax ak moom naka gisee kàddu yooyu nga yi mooy dëgg. xam nga Sénégal par parloo moo ko yàq. mais Ousmane Sonko amul lu muy mayeeti parce que liñ ko ñaan yëpp maye na ko mhm. liñ ko ñaan yëpp maye na mhm. kon kam jàkkaar lool bu fekkente ne moom dañ koo ñaan mu lànk mhm. kilifa yi nañ amuk dëgër nañ am ak ragal yàlla taxaw ci kanamu askani woo média bi ne leen ah neexut ba neexut day waaye Macky Sall day wax dëgg yàlla daa neexut te waxal waaye réew mi de lu ci am naqare nañu ni mu dee naqare noonu la ñu naqare wax nañ ba soon waaye daa bañ gis nga kàddu googu rek bu ko kilifa yi nangu woon a génnee rek faj na lu bari ndax bu boba limi def dana delu ginaaw wala askan bi fajal ko seen bop ndax dañuy xamne kat mhm. ah ginaaw kilifa yi ñaan nañ ko lank na mhm. mais fimne ni kilifa yi ginaaw kenn mënu leen miimal dara parce que tamit lu ñaaw yu am ci rew mi kenn du leen ci boddi de kenn du leen ne mhm. seen yoni wu ci parce que jëf yu ñaaw yu am ci rew mi seen loxo ngi ci biir parce que ba Ousmane Sonko jekko dañ ko ñaan ne ko bayil ta ban koy ñaan dañu wax ca kaw bi Macky Sall demee bay fitnaal askan wi jënd ay ngànnaay mm-hmm. ay yooyu yëpp bëgg a xeex askan wi askan wi ne ko xeexuñu mm-hmm. ndax Macky Sall it loolu naqari na ko de parce que kii def dara mm-hmm. quarante cinq milliards nga man koo jël <laughs> dem jënd ji ko ay ngànnaay préparé pour xeex ak sa peuple sa peuple lank na ne xeexuñu quarante cinq est-ce que yëpp jëndee nañ ko nee ma am na am na ci yoo xam ne duñ koo a luubal parce que maanaam facturation la rek liñ jënd ci armée motu quarante cinq la ko xamal ba ko ko wax de Mhm. bu ko ab Sénégalais waxoon bu dul mhm. dëgg danañ ko tëj mhm. waaye ba ko tubaab ba waxee ba léegi kenn jàpp ko de kon dëgg la parce que euh, tubaab yi ci boppam la Macky la gën a respecté waaye waat naa ci yàlla ne ku ku mel ne Pape Alé bu waxoon ne Macky Sall jël ne quarante cinq milliards jënd ji ko ay ngànnaay pour xeex ak peuple bi nega ni mu ci kaso bi waaye nag heureusement ka ko wax moom respecté nañ ko te itam euh, jàpp nañ ne kooku ay nit Mhm. bu dee sénégalais nag Macky Sall jàpp nañ ne nekkul ay nekkuñu ay nit mhm. lu dul ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom mhm. ko suyeel saal bulo yi nga xam ne moom la bëgg waaye daal li ma la waxoon léegi daal gis nga ñaawteef yi muy def dara du ko ci mooy wax naa ko ba tàyyi waaye nag gis nga ginnaaw mi ngi ci mi ngi ci nguur gi te jeexalagut xamagut ba xam dana jeexal wala du jeexal li ci kanam moom rëwli gët waaye mbir mi dana mas a jeex parce que ak notaange moom yàlla rek ko am waye kep ko xam ab jam dongu nga mhm. nek simple jam beug not jam ni mhm. suñ borom dana ñew not la bëtigu dara kam te du mujj fenn mhm. ndax kenn ku ci nek gis nga sourançon bi ñi nga xamne ay dictature lañ ñëpp li ñu def ba yalla alek leen nangu seeni pouvoir li Macky Sall dafa ko gëna a garaw moo ko fuuf waaye euh, bu fekkene la di ngeen a day nek di teud rek ah. bisa ngi ci bisi te bisa ngi ci bisi koko wax mu yaakaar bisu tebeski la waye nak bisa ngi ci bisi lepp dana rek mom bu sobe yalla Ah, dañu daal di ñëw des ci président Macky Sall ba tey ci cas naka nga gisee ah, cadre yi nga xam ne yëkkati na ko foofa ma ca Tiwaawan mooy bi muy wax tournée économique bi wax ci li nga xam ne moom moo di cadre Casamance yi mu mel ne loolee naqare na leen ci waa Casamance naka nga gisee cadre minimiser bi nga xam ne ah, Macky Sall minimiser na ko waa Casamance. mel ne ku leen génne ci Sénégal naka nga gisee loolu. mooy def leen risque maanaam Macky Sall. Mhm. daa bew. Mhm. xam nga nit ki balaa yàlla jotee ak moom rek. Mhm. mën na koy jox pouvoir yëpp mm-hmm. waaye bis bu bewee rek mm-hmm. ak nekkam duutu yàgg mm-hmm. te gis nga firawna lam daan def ci ñawtee di rey ay liir di bàkku naan maay yàlla lu ne mu def ko euh, ba mu gisee gis nga ba mu demee ba bew bana ana rabbukumul aala nga xam ne bew na rek booba la suñu borom jëflante ak moom te pourtant nag ñaawtee fi yee mu def yépp nag diir bi mën na juróom fukki at daanaka de Mhm. waaye gis nga bam ne ana rabbukumul a'la rek la suñu borom jëli matuwaayam dal ci kawam. Mhm. rey ko reyin wu ñaaw nag. Mhm. te ñam doon xeexal. bëgg leen a rey suñ borom nee na bi ñu bi may rey na yéen a ngi jàkkaarloo ak moom. te Firawna kenn ku ne xam nga ne yilif na Misra lu ëpp ñetti téeméeri at. Macky Sall yilifagul Sénégal lu lu lu mat fukki at ak ñett fukki at ak ñaar te manqué na tuuti ndax des na ay quelques mois. léegi nag dem na ba bew. nañ xaar rek ba xam yàlla moom. fam daan mujj ak ñu beew ña mm. fa lay mujj ak moom wala déet parce que bu fek lu mëna démé rek mm-hmm. war na respecté wa Casamance mm-hmm. parce que ci biir Sénégal lañ bokk mm-hmm. ta war na respecté tax ñako fa wotel ndax lu bon bon Casamance limi réré réeré ñëpp ànduñu ak Ousmane Sonko amna fa ño xam Macky Sall lañ andal mom lañ wotel bu respecté Ousmane Sonko ak mbokam na respecté ñako wotel waye Macky Sall dal ngay gis muy waxé no xamné mm. da nga nan ki dal non Macky Sall dal ni mu beewe dal jéguna dayo waye dal li ci kanam da ku mas a bew daal yàlla rëq na diggam mm-hmm. nañ xaar fu yàlla rëq diggam mm-hmm. mais instant bi la lan ngay euh, wax li nga xam ne moom moo di kilifa diine yi parce que jamono ji dafa mel ne jot na ñu dugalaat seen loxo ci mbir mi Ousmane Sonko ñoo ngi nii bëgg koo écarter ci li nga xam ne moom moo di élection yi ñoom instant bi lan moo war a doon li nga xam ne moom moo di seen taxawaay comme que noppi nan ba heure bi ñu bëgg a neenal candidature ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko li ma jaaxal sax mooy mm-hmm. Ousmane Sonko bi mu jëkkoo Macky Sall bay def conférence de presse. Mhm. daf ne Khalifa Ababacar Sall ak Abdou Karim Wade nañ leen delloo seeni droit ñu mën a bokk ci élection yi. Mhm. waaye ñoom est-ce que nga kenn organiser benn conférence de presse. Mhm. pour pour défendre Ousmane Sonko pour mu bokk ci élection yi. nga xam ne ay jàmm pire lañu. parce que biñ leen jàppalee. ñoom bañ dugalaat leen ci ay tappale. dugalaat leen ndax Khalifa Ababacar Sall yéen sénégalais yi. <laughs> bañ di ko ko topp ba ne eh, dana fay allamaan kon kooku <laughs> d'accord na ne sàcc la mhm. waaw sénégalais yi ndax di ngeen fi bàyyi nit ñu jub ñi di watal ay sàcc Abdou Karim Wade dañ koo tuumaal cent trente huit milliards mhm. bam daw génn réew mi ne ñu allamaan ko ne dana dana fay allamaan ji pour mu bokk ci élection yi su ngeen wateelee Abdou Karim Wade it wateel ngeen ndax da ngeen fii bàyyi nit ñu jub ñi di watee di sàcc nag mhm. koo xam ne yow ak keesug mairie dong lañ la dénk nga attan faa luubal un million un un milliard cent kooku boo ko dénkee keesu réew mi nan la koy def xanaa da koy xaaj ñetti xaaj jël ñaari xaaja kon kon dama ne sénégalais yi xëpp leen seen bët yi. Mm-hmm. bu dee kilifa diine yi nag ñoom. Mm-hmm. li leen askan wi def rek doy na sëkk ak mbugal mm-hmm. ndax askan wi war nañ leen gannaaw ñenn ñi nga gis ñu ànd ak sëriñ si doon ay benn benn ñooña moom alal ja ñi lekk ci biir kër sëriñ sa moo tax ndax sëriñ si boo xoolee ñaari mafia ñoo ko wër benn mafia bi mooy ñi nga xam ne nee na ñooy ay taalu bare di dund ci sëriñ bi bu fekkente ne beneen bi la mooy Macky Sall lañ fi nekkal di dund ci nekkuk sëriñ bi bu ko defee nag sëriñ Touba ba mu fi nekkee moom daa ubbi woon ay buntam kenn deewu ko tëj ci am sa ak kaaf mel ne ku tëjum sa ko kenn deewu ko def sëñ Touba sëñ Touba da daan génne di recevoir borom alxuraan yi di recevoir borom xam-xam yi di recevoir ñii laaj ko bind alxuraan jox ko mu jox la loo xam ne bu doon jamonoy tey nga ne ci milliardaires yi ngay bokk. Mm-hmm. sëriñ tey boo leen joxee kaamil dañ naan la tàllalal ma ñaanal la kon doon donduñu sëriñ Touba. Mm-hmm. ak li leen di dikkal ci alal ni mu bare mm-hmm. waaye au lieu que ñu encouragé ñiy bind kaamil mais encouragé wuñu leen kooku benn la ci ñaareel bi mooy kilifa diine yi ñoom itam amatuñ lu ñu wax parce que bi Ousmane Sonko di taxaw di défendre Abdou Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ñoom ñëpp dañ caa àndoon taxaw ca mu bind fukki point yi jox leen ñoom itam ñu xëy Macky di di tóor tiir askan wi ñu ne cell nit ñi di dem di dee ci géej gi ñu ne cell waaye ku dee ci beneen réew moom mën nañ caa wax mën nañ caa jël alal yónnee kon ñooñu doonatoon ay kilifa diine waaye ay kilifa aada lañu kilifa aada nag mooy kilifa goo xam ne mage na ci at ñu teg ko ci benn place di encaisser ay milliards lu leen neex def loolu daal moo fi nekk léegi waaye la ne woon bu njëkk moom loola nekkatu fi ndax Seex Amadou Bamba bi mu fi nekkee dawul nangu kenn di ko tëj te da daan xam li xew daan ci jël ay position ndax bu juboo woon tubaab yi du ci géej bu fekkente ñi mu fi bayyi nak dañu juba nguur gi hmm. ah mo taxit ja jeen amoon mënatuñ ko am parce que man sama classe gii seigne touba dong wa top de waye topu ñu kenen <laughs> kenen ku fi mëna nek ñu naan la ah, yow kat ya fi seigne touba dañ lay jey waye xam nga ni seigne touba jige woko ko to lo ko ci wax ndax seigne touba ko amoonu fit la hmm. tay itam deug bu daan taxaw da ci xol boromam hmm. ndax bam jamono ja wax naan euh, ba wax kharima jaxata kala naan ko borom xam-xam buy dox jëm ci bunti buur mi ngi mel ne weñ wu tong ci kaw cabinet amul genn kilifa gu ñemee taxaw tay tay tay mhm. fàttaliwaat loola amul kenn ku ko ñeme mhm. kon nag kuñ naan fi yaay sëñ Touba xam nga ne dañ lay jee waaye jigéwu ko sax mhm. kon sëñ Touba du ñoom te ñoom itam du ñu moom parce que ñaawteef yi nekk ci réew mi seen loxo gi ci biir mën nañu wax ba mu dañ te dañ ne cell ak moom kon nag ñooñu moom daanaka li leen askan wi def daal doy na sëkk daanaka jërëtul kenn di leen wax dara mm-hmm. askan wi wan nañ leen gannaaw mm-hmm. benn benn nit daal ñooy dund ci seenu ron mm-hmm. waaye ñu ëpp ci askan wi te yeewu te utiliser seenum xel moom banañ leen wan nañ leen ginnaaw euh, jërëjëf oustaz amoon yu mbégte dalal la kontaan nañ lool ci déplacement bi di la wax nga daal di tàggatoo bu fekkee am na leen loo xam ne itam bëggoon nga ko wax te jotuñu caa àgg bo defé nga dal di ci ki rek inshallah waaw sama kàddu yu mujju dal moy ye askan wi dal ay mbiri lamb jox len alal ju bari hmm. léegi nak yeen askan wi hmm. mooy tandiku leen lamb ji bakkar do ngeen fay jële hmm. te amul tuyaaba tay itam réew mi baaxul ginnaaw réew mi dafa tollu ci ñu war ko defar nak wax deug yalla ku yab ku yabu da nga tan diku am po te suñ borom rëbb na ñi nga xana ay fokat lañu te itam bu fekkente ne fokkat yi mhm. ñoo leen mën a dajale mhm. ndax bëgg a wëlbati seeni xel mhm. parce que réew mi fi mu tollu ak situation yi mi toll dañ leen a bëgg a divertir dugal leen ci ay po waaye bañ leen loola képp koo ci xam ne daal yaa nga may seetaan te dëgg ñor la waxuma koy parparloo nag koo xam ne dëgg rek la ñor suñ boroom moom nee na afa hasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun bu leen yaaka bu leen jortu mukk ne adduna dama ko bind wala dama leen bind andi leen fi ngir ngeen fa mhm. suñ borom nee na aw ma jotu fa wa maa xalaq na samaa wal arda wa maa bind laa'ibiin mhm. a asamaan ak suuf ngir fa bu doon fa rek am naa ñu ma koy defal kon yàlla fawut foluwut kon yéen ndawi Sénégal yi seetaani làmb mhm. ak paa yi perte di seetaani ji làmb nañ mhm. delloo ci seenum xel mhm. fexe ba réew mi baax bu réew mi baaxee kenn ku ci nekk sa jaamu yàlla dana gën a yokk ndax nit ki jaamu yàlla ànd xel mu dal jaamu yàlla am nga ca lay gën a ëppee tuyaa ndax ca lay gën a mën a teewloo kon daal loolu laa amoon lu may dénk euh, sénégalais yi bu ko defee Bassirou Diomaye Faye mi ne nañ ko paree neel xëy na waa Pastef ñoom danañ def communiqué